bis la boo xam ne bisu tiis la waaye mën na ne bisu mbégte la parce que dama ko bokk samay mbokk tax na diis bi mu waroon a diis tey diisu ko ci man xam ne lépp rek dama koy delloowaat ci yàlla xam ne it moom it xale la woon dafa demoon di supporter ji équipe am demoon di supporter ji couleur dëkkam muy stade de Mbour ba yàlla moom ko euh, foofu ci dakaar Eh, bu toogoon ci kër gi it tëdd ci lalam bi yàlla fii la koy fekk ne ko sa ruut fii lay yem fii la koy jëlee parce que man maa ko jox paas mu dem dakaar parce que démb ci suba bi ñu génnee ci jàkk ji te am na habitude it salaatu na mina nawmi bu nekk bu ma jiituwul ci jàkk ji bu ma jiitoo bu ma toppee bu ma demee mu topp sama ginnaaw ba démb ci mujj si jàkk ji la jullee fajar may dem mu ne ma papa am naa problème ma ne ko 10 000 laa mën naa la jox 5000 bi. si woon na ci mbuur tey koo ne Assane Maar wala nga ne naar xamoon na ko waaye man mi di papaam maa ko gënoon a bëgg stade de Mbour parce que xañ moo ma gën a siiw ci football mais naa ne tere ci Sénégal Tamba rek laa àndul ak stade de